dinaa siiwal dinaa la siiwal yow fekk moom ba may takk man ak moom dañ doon def appel vidéo tout le temps dañuy def appel vidéo suñ defee appel vidéo moom mii day nuyu dafay simmeeku ba set. mais yow am nga vidéo yu simmeeku. non yoruma ko parce que man jubluwuma ci pour def lu bon. Hmm. du ma ko yor moom mii moo ko yor moom moo yor sama bos te moom yor na ordinateur. yor aussi téléphone am waaw kon neen moom moom moo ma ma nuyu si jabaram laa. boobu dama lay wax lu leer si boobu maa ngi nekk jabaram. yaa ngi nekk jabaram waa maa ngi nekk jabaram. Mm-hmm. moom mu téye ko daf ci jublu lu bon moo tax mu téye loolu parce que kenn du nekkal sa jabar di ko di ko di ko enregistré di ko screen record loolu mënul nekk man mii fu fu ma waxee ne screen record naa la moment yi nii du ma ko gëm. duma ko gëm parce que dama naan boobu sama sama jëkkër la donc lu ñu def sama diggante man ak moom war naa yem sama diggante man a moom warul génn ci biti mais ba tey génneewul dara de foofu laay waxee yow ba tey yow rek wax de yow rek yaay wax ne moo ko yor nee na da koy génnee ba tey moom waxul dara maanaam yow rek yaay wax foofu laay waxee yow boo ma dégloo di nga xam nga xam li ma lay wax ma dégloo di nga xam li may wax dama moom daf ne ko kon ma génnee la kon ma génnee la ma ne ko non doo ma génnee parce que man yaakaaru ma woon ne moom yor na yor na dara ci man da yor na dara ci man lu bon loolu laay yaakaaroon léegi mu ne bu ma siiwal mariage bi te bu ma wax dara ci moom naa ne patt jàpp sama ñaambur continuer sama vie dund sama vie dem sama yoon moom mu dem yoonam ma ne ko lool noon du ma ko defee noonu dinaa siiwal mariage ba ñëpp yëg ko ma siiwal mariage bi ba ñëpp yëg ko mu ne ma man maa ngi dem mu chantage ma mu ne ma demal nga xool sa bopp si sur WhatsApp WhatsApp léegi am na nooy envoyé nit ñi sur benn vidéo boo koy yónnee mu xool ko benn yoon dootu ko mën a xoolaat WhatsApp léegi day def noonu wala. waaw FMR FMR kii waaw. waaw léegi waaw kay léegi moom moo ma koy yónnee ma xool sama bopp gis sama bopp ma ne ko yaw yaa bon yow da nga filmer sa jabar kon te yëguma ma ne yow ba may nekk ak yow kon ñuy dund moment yi da nga koo da nga koo. yore sa jabar tapote leen écran bi gars yi tapote leen écran bi mu dem direction 1 million. woo police ma ma report ko ma porté ko plainte ba ma ko porté plainte ma ne ko porté naa la plainte bis bu ma gisee vidéo yi circulé dinaa la dina dinañ la jël si moom woo sama frère bu ma bokkal ndey ak baay wax ak moom li muy wax ak moom ba pare ñoom ñaar ñu waxtaan lu yàgg mu jël vidéo yónnee ko sama frère bi wan ko ko mu xool ko benn yoon xoolaati ko moom moo ko yor tey jii sama frère boobu mën na ma seede moom dafa am lu muy xool ak lu muy seet man fu mu ne sama der yàqu na ba pare man jaratuma dara si dëkk bi man moo tax ma génn di wax ba tey mais moom sama frère bi moom du di wax mais wallahi azim moom gis na ko man gis naa vidéo yi moom gis na ko loolu moo tax ma ne dafa yor. tapoter leen écran bi dama cee teg sama bët moo tax. ok léegi vidéo bi daal maanaam yow rek yaa ko maanaam yow yaa ko gis. yow yaa ko sa bopp dama ko gis benn yoon gisaatuma ko. ñun moom gisuñu dara gisuñu vidéo gisuñu say intime wax dëgg yàlla yow yaa gis loolu yow yaa ko wax. waa gisagoo leen dara mais léegi beneen bi ni waxaat mooy lan moo tax No Face am rapport bu baax ak say mbokk maanaam say mbokk ñoom jàppale wun la jàppale No Face la yow fan nga teg loolu lan fan la nekk parce que yow sa mbokk yëpp No Face la ñu àndal moom la ñuy waxtaanal te sa mbokk yëpp yow loolu ban mo mooy man. déglu déglu ma ba ma amee problème ba tey wallahi azim ba ma amee problème ba tey samay mbokk fu nekk lañ may woo. ñaari cousine nga dugal ci appel bi ñaari cousine sa ñaari jigéen nga fi dugal ci appel bi. sama kay no face am na ñett waaw kay am na ñeneen ñu muy waxal. ñu muy saaga moo tax mënu ma wax ak Adamo mais naa ay mbokk. waaw waaw mais noo noo fees nag day wax ak day wax ak ñeneen ñoo xam ne dun say cuisine ñoo xam ne ñëw say mag la ni doon wala say say mbokk yaay wala say famille te ñoom day déggoog ñoom téléphone man daf may wax ne ma dé tey jot naa ko waa léegi yow lu lay wax gëmal li nga gëm. non non gëmuma de man damay déglu ñaari version yëpp man duma ma kenn. li ma bëgg a wax mooy yow en tant que jigéen bu fekkente ne say mbokk danoo wax ne yow nanguwun sëy bi parce que du ñu sëygle maabu wax dëgg yàlla waroo woon a dem di sëy ak moom. loolu waxoon nga ko waroo woon a nangu léegi nag loolu moom mooy problème bi nag. léegi yow lan moo tax nga na waaw nañ jàll ci leneen fii laa nekk te sama yaay moo ngi fi américaine la ñoom sama fan am naa fi famille ba ma waxee ak ñoom ñoom ñu ne amuñu ci problème te ku nekk xam na ne américaine bu gisee doomam mu bëgg dara da ko ciy jàppale loolu si loolu ñëpp ko xam tubaab xamul ay maabo ak ay toorooda tubaab xamul loolu sama yaay moo njëkk ànd si sëy bi amu ci problème mais wax ak moom du wax ak man xaw ma ndax am daf maa bloqué parce que dëkkuma ak sama yaay man kese maa dëkk waaw parce que ah yow moom amoo kilifa moom loolu moom bu yeboo nga nangu ko ñu doog a. ko parce que ah, am kilifa man samay mbokk bu ne ma tooro dollar. man damay àtte dëgg. yow li ngay wax nii d'accord naa ko waaw non non yi dañuy yaakaar ne damay fer noo fees mais ku déglu sa version. déglu sénégalais yi bu ngeen àttee da ngeen xam ne ndaw si amul kilifa foofu laay waxee ak moom. mais li nga li nga jot a dund mën na nekk dëgg. li nga amoo loo ci loo ci leeral que ne aw kilifa loolu li ngay wax tegoo ah, lu tax wax da ngay wax ñu war a wax ñu leeral loolu ñu ko loolu ci la bokk. waaw mais loolu ci la bokk. loolu wóoru ci non wóor na ma ndax yaa ko nettali léegi. États-Unis fii moo fi gën a yomb bon fi. waaw man loolu moom leeruma yaa ko nettali léegi. pour bon yaa ko léegi soxna si yaa lettali léegi daan ne say tooro da ngeen ñu ci sëy bi ñu nga sëy maa bu moo tax nga làq sëy bi dem sëy ak moom def tàkk gi takk suuf yaa ko wax fii mu leer nañ loo bëgg lan nga bëgg waaw kon nangul li ma la wax bul nangu ne man dama amoo kilifa amoo kilifa ak ku ko mën a def amul kilifa muy yow di keneen ok kon Mia Guissé tamit amul amul kilifa. lu Mia Guissé def Mia Guissé ba mu bëggee woon dugg si sëy bi ñaata mbokkam ñoo ko ne bul dugg si sëy bi. ban koy mayee siiw na sëyam siiw na te ay mbokkam assisté na yow ana say mbokk léegi nag bosam bosam ana say mbokk parce que yàlla dogal mu siiw. waaw yow sa bos ko siiwal. bàyyi ma am problème doog a génn damaa bëgg ñu waxtaan rek waroon siiwal moo daw bàyyi ma moo daw bàyyi ma ah dafa daw bàyyi la ki la waroon siiwal ñaanu ma ko baat moo daw ma waaw moom moo dem bàyyi moom moo ma moom moo ma toroxal ma ci kër gi xaan kenn fekkuma ci baar kenn fekkuma may cagatu wala dara. mais léegi ci kër. ah mais kon léegi léegi kon ban la nga ko waroon ban la takkee ban nga ko waroon na siiwal. déggoo ma ne la moom daf ne ma. dafa naroon a siiw dafa. naroon a siiw mais moom balaa sax toogagul sax mu jotu koo siiwal loolu moo tax ma génn siiwal mariage balaa moom lépp lu lu ma ci mën a fekk rek fekk man ci sëy bi la ma fekkoon loolu laa bëggoon mu leer léegi lan moo la gën a metti loo xam ne ni tey moom nga war a mën a wax sénégalais yi pour ñu déglu la ñi lay seetaan dix-sept mille personnes yépp li ma gën a metti mooy lekkatuma naanatuma sama kër xaw ma lu may ndirool tey man sama bopp man sama jëmm bopp xaw ma lu may ndirool lekkatuma naanatuma sama famille tey amul ku ma woowul si àdduna ku ma gëj a dégg tey fu ne nga fu ne fu ne la ma nit di woowee tey fu ne la ma nit di woowee tey jii ku musul woon dégg rek ci dara dégg na ma si dara tey sama àdduna lay yàq te wallaahi la te du ku nekk la ñuy tooñ. du ku ñuy dugg si moom tey jii Mia Guissé mën na ko noppaale parce que. non bàyyil di wax wuy ma bàyyil di wax. kilifa ban koy takk takk nan ko fu baax ay mbokkam assisté nan yow yaa takk takk suuf yow la nëbbu yow lan takk takk boo xam ne takk secret la yow waxal sa wax. waaw mais bul tudd bul tudd Mia Guissé yow waxal ci yow rek. sa sa vie la waxal sa vie waaw bul tudd Mia bëgguma nga tudd kenn yow laa bëgg nga wax yow li la metti waaw. non sa yoon wul ci Mia waaw demal non non parce que sa yoon dafa lii du affaire Mia du gis bokku leen moo tax yéen ñaar bokku leen de bokku leen kaa waaw demal baax na. Mia Guissé na ko waa àdduna yëpp jàppal man maay deuxième victime bi wallahi azim ak lu ma bëgg sama àdduna yàlla naa jaar torox ba faw fekkee li may wax du dëgg. Mira Guissé na ko ñëpp jàppale si yoon la nekk te si dëgg la nekk wallahi azim ak ma ñàkk sama àdduna ñàkk sama lépp yàlla naa torox ba faw Mira Guissé moo nekk si dëgg Abdoul Guissé Abdoul Xafour Mbacke Guissé du nit ku baax yàlla baaxalu ko du nit ku baax te du baax ba ilaa yow mi diin du ko baax Mira Guissé lépp lu mu dund da koo muñ parce que dañoo am doom te dañoo dañu dafa muñ dafa muñ muñ moo ko indee lii yëpp te moom musul daw reculer mais yow xanaa dama ne la xanaa Mia Guissé moo la yónnee yow yaa ngi am problème waxoo ko di wax ay Mia Guissé. bàyyil ma wax lan moo tax nga may coupé bàyyil ma wax non mais Mia Guissé rek doo tudd sa vie yow ak li la fi indi ah man de looloo ma jaaxal waaw aja yow yaa ma invité si live nga waaw aja demal tàmbati leen écran bi demal na ma àdduna yëpp nag jéggal parce que xol laay waxee yàlla xam na ko du nii mooy sama jikko xol laay waxee sama xol moo jug parce que nit moo xam lu mu dund nit moo xam lu mu dund bay yuuxu bay parce que instant bi man dama amee dépression mën naa ne damay yuuxu parce que sama xol foofu la toll tey jii amaana bu ma dundul woon dara damay calmé wu xëy na mais munuma ma calmé wu instant bi parce que man maa xam ni may dund Mia Guissé dafa nekk si dëgg te na ko ñëpp jàppale dama koy répété di ko répété waat tëgg kii bu kenn duggati si moom man maa def erreur dëgg la mais xaw ma kan de wante fii ci àdduna bi bu dee sénégalais bu dee sénégalais yaa ngi may dégg ku am sa doom na ko téye bu ko may genre nit yu mel ni moom parce que dina yàq seen àdduna comme nu mu yàqee sama àdduna man xëy na mi yaa sa dina ko suturaal ndax ñoom ñaan dañoo am doom yaa gisee dina noppaale lu bëri du wax mais man dinaa génn wax parce que jotuñu sëy amuñu doom jotuñoo am doom. yéen kay jotu leen laalante sax nee nga jotu ñam. waaw loolu dama koy wax mu leer wax naa ko mm. da ngay jooy bul jooy waaye. yow waxal li ngay wax rek da nga am question booy posé waat. bul jooy ok question bi may pose mooy lan moo tax maanaam nga bëgg a jël sa situation ak situation Mia Guissé boole leen dunu benn de est-ce que d'accord nga. mbaa xam nga ni benn jëkkër bi lañ doon sëyal benn jëkkër bi ngeen doon sëyal mais bokku leen fi fi mu jaar ak ñaar gi ak fi mu jaar ak bay bokk bi lañ waaw kay déglu ma rek non bul ne benn jëkkër bi rek da ngaa war a tudd Mia Mia ba mu koy sëy takk nan ko ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad du takk suuf ay mbokkam assisté nan ay ñi ko war a yëgal yëg nañ ko dugal nañ ko ci internet bi lépp siiw na seq nañ ay single way nañ def nañ vie bu dul fay ba neex sénégalais yi yow yaa ñëw jëkkëru jàmmoor ñu def la jabaru fej mer nga dugg ci noo fees ne salaam nga ko xamee dugg ci moom ngeen di sa yéen ñaar nga ne sa papa d'accordul sa yaay d'accordul say mbokk d'accordul nga dugg ci sëy bi may ma rek nga dugg ci sëy bi ba am problème kenn yëgu ko nga doog génn siiw bokku leen de bokku leen yow amoo kilifa miyaa dafa am kilifa yow mënoo bokk ak miyaa gisee wax naa la parce que yow li ngay wax nii dawul sama yaram sénégalais yi lay daw seen yaram. man ne xam nga lu tax man génnuma pour pour pour dox si benn. waaw parce que non bokku leen bokku leen yow ak Mia Guissé naay ay li leen wutali ni mu bëree. waaw bu yaboo ba tey. différence mi bëri na de soxna si. loo wax na mais soo continuer di di wax ak man nii wala may saaga damay génn. saaga wu ma la de. lu tax ma lay saaga loo ma def ba ma lay saaga. dama ne yow sa sa audio yaa ngi fii yaa ngi ma ko waaw parce que waaw parce que da nga maa contacté ñaari dafa ndànk rek da nga maa contacté ñaari yoon lan moo tax lan waa la waa léegi lan moo tax nanguwoo nanguwoo wax ak man ngay dugal seen cousine moo tax ma saaga la parce que sa cousine parce que sa cousine yow parce que yow yaa jël sa yow yaa jël sama numéro dugal ci say cousine ma wax sa cousine bi naan da may déglu ndax dina la mën a danga da ngaa feebar da nekk hôpital ku nekk hôpital di nga waxee nii non non dañ ne ma da nekk hôpital da ngaa feebar ku feebar nii lay waxee ah kon kon feebar gi dañ na li la daloon dañ na. yaa ngi tane man doo ma xas. non non xasuma la de xasuma la de nga may paas seen cuisine yaa ma woo yaa jël sama numéro yaa ma contacté yaa war a wax. ñoo bëgg a wax ak yow man woon man dama ne woon du ma dugg si laaj bi du ma wax ak ñëpp dañ ma woo ne ma dugg ci yow. waaw léegi rek baaxoo parce da ngay. non yaa ñëw waa ko baaxul looy ñëwee ci yow di ko jox sa sa bora lépp yow yaa wër sama numéro yaa ma bind. soxna si man cherché wu ma la waruma la yaa wër samay numéro yaa ko lijjanti yaa ma woo nan d'accord man aw ma sa man aw ma si yow dara aw ma si yow soxla musuma laa contacter xaw ma la musuma wax ak yow man xaw ma ku la booleeg yow yaa ñëw ci man yaa ma seet sa yaa ma wax sa problème man waruma la sama yónnewul ci sa problème dëgg laay atte yow yaa nangu ñu takk la takk suuf yaa nangu ñu takk la takk suuf amoo kilifa amoo kilifa bu ma kenn ne ma kenn du toroxalee nii jigéen kii amul kilifa. waaw man seerse wu ma la seerse wu ma la yaa ma woo yàlla jënd sama ñaari numéro yëpp sonal ma démb ci guddi ba tey mënu maa nelaw deux heures du matin ngay woote trois heures du matin trois heures quarante saa yu ma coupé nga woote saa yu ma coupé nga woote saa yu ma coupé nga woote man na yow li ngay wax nii waneel sama discussion man ak moo ci doon woo morom